gis nañ que seen coalition bi ngeen bokk mu yeewu askan wi amoon na ay yoo xam ne xëy na parti yu mag yi ñoo ko seq ci seen biir ndax kii kay jàppale kii li muy def ba jaaduwul ba mu indi ci coow yéen ñi ni tey jii ndax vous êtes parvenu à surmonter tout ça ndax génn ngeen si derrière vous nga bon en fait euh, ñun lu ñuy tàmm di wax mooy gis nga su fekkee ni coalition dafa am coalition toujours day am coow. c'était normal mm -hmm. on l'a vécu avec euh, euh, Yewwi Askan Wi avant Yewwi Askan Wi également on l'avait vécu soo xoolee ci municipal yi y avait amoon na législative yi amoon na chaque fois qu'il y a on est à l'approche d'une élection foog moo am coow. parce que c'était peut-être entre les membres les responsables mais pas les leaders mais on sent euh, voilà que les leaders ñooy daalante darante seen c'est un peu oh, différent. Oh, oh, suñu xoolee leaders yi peut-être que ko mi ngi ci biir waaye euh, Khalifa Sall boobu ba léegi su fekkee ni cas yooyu ngay wax Khalifa Sall waxagul dara. Euh, c'est plutôt il a appelé en direct pour recadrer un autre leader. Euh, non pour recadrer quelqu'un qui n'est pas dans la conférence su fekkee ni Barthélémy Diaz ngay wax. non non je parle de Khalifa qui a appelé Cheikh Tidiane Youm en pleine émission. oui di wax ne ko ni nga waxee waxuma ko affaire yu mel noonu. bon c'est des choses après aussi Malick Gakou am lu wax Ousmane Sonko di kii foofu laay waxee bon disons que c'est tout à fait normal xam nga lu lu coalition luy def luy def euh, richesse am mooy la diversité d'opinion ci noonu ci wax yooyu ci la ñu mën a ñun ñëpp seet ni que bon il faut donner beaucoup beaucoup beaucoup pour que lu ñu gëm mooy le projet commun bu ñu porté boo xam ne moom la Sénégal gëm actuellement looloo tax ñu def confiance en Yewwi Askan loolu rek moo ci am solo mhm. yeneen yëpp mooy forme bi nan lay jëlee nan la ñuy waxee c'est normal que dinañ ne bon est-ce que nañ def lii wala nañ def lale kenn ne d'accord wu ma ko nii kenn d'accord mais lu am solo mooy coalition boobu léegi mi ngi fii et mi ngi continuer son bout de chemin et charte bu ñu signé woon au niveau avant les municipales ne dañuy ànd municipal ànd législative et que suñ demee pour la présidentielle leader bu mu neex na dem dekk nekk un candidat su boobaa celui qui est arrivé de le, le plus haut classé mm -hmm. de ces cas parmi ces candidats là ñeneen ñëpp jàpp la te loolu mi ngi fi ba léegi. mais justement est ce que atteindre ay limites am dans la mesure où euh, dans le passé amoon na ay problèmes ay tremblements mais daawul daawul am benn benn euh, bruit bi benn effet mais là euh, fi ma ko mooy est ce que du conflit d'intérêt dafa commencé am wala ku ci nekk jiital sa bopp ba tax na fi mu fi mu toll nii nii mën mënu leen ko weesu. disons ku nekk kenn ku ci nekk jiitalu sa bopp ku nekk yaa ngi def ku ñu bëgg nekk candidat yëpp ñi ngi wane woo pour nekk candidat. ñun suñu mhm. leader am condoléances en passant parce qu'il vient de perdre j'ai appris qu'il vient de perdre sa sœur ah, mi ngi moom tamit def sa son chemin pour sa candidature def nañu suñu congrès def nañu suñu déclaration de candidature chemin à en ce moment. mais li ngeen seetlu li nga wax ni bu ñu génnee ci ci ci ci ci ci euh, législative yi même pas législative ci municipal yi quand même sur les euh, je pense sur les cinquante deux partis les trente cinq avaient quitté déjà Yewwi Askan Wi te loolu c' est que y' a pas eu cette amplification. par des partis yoo xam ne tax ñu am doole. aussi du du du voilà mais socle bu dëgër ba tey. xam nga parti bu am doole ak bu amul doole élection rek moo ko mën a natt. certains xam nañ ne am doole c'est vrai donc mais le le le fait est que du ñàkk du ñàkk mhm. effectivement que peut-être bii pas presse bi daf ko mais dans lu ñuy def ci réunion yak yëpp nit yi duñu d'accord ci yenn position yi mais au finish on se toujours finit toujours par se retrouver lii lu récent la certainement les gens sont mettre en train de mettre les mécanismes en place pour kii dinaa la jox benn exemple gis nga ci investiture yi y' a même y' avait y' avait même une commission de résolution des conflits des parce que on anticipe pour dire mhm. que forcément dina am conflits ok loolu nag moo fi am bon il y a les leaders qui seront là et qui se mettront autour d'une table pour discuter pour voir quelles sont les meilleures solutions. avant ñu dem ci dialogue avaient déjà quitté la coalition sur combien. 35 c'est à peu près une trentaine de. sur combien sur cinquante et loolu lu ngeen def ba nëbbu ko nit ñi. nëbbuñu ko c'est xam nga. xam nga wala ñi dem ñoo amul doole. disons que ak euh, lan moo ko motiver woon. lu ko motiver woon xam nga après chaque fois soo defee ay ay ay ay investiture dafa am ñoo xam ne ñu mer. Mm-hmm. ni nuñ ko defee baaxul ñoom dañuy bàyyi rek c'est pas. yéen vous avez été lésé ci investiture yi. parce que ñun y a quelque chose de plus grand toog naa fii ci plateau. sa plateau bi wax ko lu ñu yitteel du affaire ay investiture ou pas pourtant ñun ñu avant ñu dem investiture bokkoon nañ ci parti parti yoo xam ne ñoo fi ëppoon député bu ñu demee législative yi zéro député lañ on s'est retrouvé avec zéro député mais teewul ñu gëm le projet parce que loolu moo tax ñu ñu ñu ñu ñu dugg biir Yewwi mm-hmm. projet de société boo xam ni ci jaay nañ ko Sénégalais